Moustapha ñu leen di sant bu baax a baax mbokk journaliste yi ñu jàkkaarloo di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw fii ndax yéen moom eh, buñ leen amul mën am li ñuy wax bu génn saal bi wala bu génnee du sori kon yéen da ngeen tax suñuy kàddu daj eh, fépp ci réew mi ak bitim réew kon sant bi ci yéen lañ koy tàmbalee di wax nag laaj bi nga wax lu tax lii mooy rek dina nekk ci jamono ji wax ni jamono communication communication mooy nit ki li mu yor wala li bëgg nit ñi xam ko mu war ko wut ay moyens lu nga xamante bi ne euh, da koy utiliser pour euh, jaaree nit foofu noonu message am léegi nag jamono dafa toll koo xamante bi ne ñu yeneen référence bu nga xamante bi ne dañ koy dañ koy dañ koy importé nag ay Sénégal euh, jël enseignement Cheikh Ahmadou Bamba def ko muy suñu suñu suñu suñu suñu suñu ay euh, référence ci wàllu dund mm-hmm. moo taxoon ñu ñu ne faaw ñuy jël ay bis yu mel ni yoo xamante bi ne Serigne Touba euh, euh, ci ñun defar mm-hmm. féete suñu wet muy Cheikh Ibra Faty nga xam ne la ñu wax ne an namuzaja la ko daan tuddee mm-hmm. namuzaja mooy modèle échantillon mooy lu xamante bi ne da nga ko defar mais da nga si bëgg defar yu bëri loolu mais bi nga njëkk a defar nag moom mooy modèle bi Serigne Touba noonu la daan tuddee borom Daaru Muxti murid bi Serigne Touba njëkk a defar mooy borom daal moom bu paree tuddee ko noonu nag képp koo xam ne nga bëgg euh, sukkandiku. doxee sama njàngale. Mm-hmm. xoolal ci Cheikh Ibra Faty kon ñu ñëwee fii ci place bu mel nii ndax lii yi mm-hmm. place yi nii day nekk ay place wante bu ñu fi amee événement ñu bëri danañ jéem a gëstu jéem xalaat kii mooy kan. Mm-hmm. moo tax ñu ñëw fii jéem a ba am place bi jéem fi wax Cheikh Ibra Faty ngir wane njàngaleem Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul mhm. nga xam ne moom defar na ay nit yu nga xamante ni mën nañoo defar àdduna euh, mhm. ñu xamoon bañ koy bëgg tamit ni ngi ko waxee sànq fa tàmbali mhm. nekkoon nañ buy Masaalikul Jinaan defee ko fa ñaari at daaw ñu defee ko ñu defee ko place euh, du souvenir ren ñu defee ko fii nii li tax ñu léeg-léeg ñu ñu am yenn kii mooy ne euh, objectif yi mooy ne Serigne Touba dafa wax ne bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ne ko rabbi ashaabaka bil himma maanaam inculque

jafal si ñoom ne lépp lu nit di am ci àdduna ci ab cër wala lépp lu nit di am ci àdduna ci wàllu yàlla jàppal nañu mënees na ko mënees na koo am nit ñu xam ne Cheikh Ibra yi liggéeyal na ba sëñ bi bind ko leetar ne ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la ñu gëm ne bu ñu ko ne sumbalee dara donte suñu suñu doole bëriwut wala suñu at bëriwut buñ ko gëmee moom moo cay roofu ci suñu suuf ba loola nañ ko bëggee mu am ko. Mhm. te chaque année ñu ngi ciy gis ay avancement ñu ngi ciy gis ay ay ay ay ay tànk yoo xam ngi jëm ci kanam. Mhm. kon loolu lenn rek la mooy wane njàngaleem Serigne Touba wane borom Daaru Muxti mooy wane njàngaleem Serigne Touba. Mhm. ndax mooy kii modèle bi nga xam ne moom la présenté. di wax tamit ne. mu waajale ko tamit lu ko dee dugg tamit ci cadre waajal màggal Daaru Muxti ndax màggalu Daaru Muxti ni ko sëñ Mouhamadou Fadil Mbacke daan waxee dafa wax ne tase googu Cheikh Ibra Fati tase ak Serigne Touba mbég moomu noonu mooy mbégum yoonu mooy yëpp kon loolu noonu waru amul benn bis bu ko gën a am yilla mhm. ci Daaru Muxti ñu koy célébrer bu rencontre boobu noonu mhm. kon mbég moom nekkul mbégum Daaru Muxti waaye mbégum yoonu murid yëpp la mbégum lislaam yëpp la mbégum nit ñun la ndax bis boobu ñu tas ñoom naa day symboliser bis bi nga xamante bi ni Sëriñ Tuubaa am na ndam ci les euh, colonisateurs mooy tubaab yi nga xam ne bëggoon nañu dominer bëggoon nañu tamit euh, bëggoon nañu maanaam euh, fay lislaam mhm. kon victoire lay symboliser moo tax ñu wane ne ñun am nañ bis boo xamante bi ci lañ dominer ñi nga xam ne dañoo bëggoon a dañoo bëggoon a li ñuy wax aliéné aliéné mooy fexe ba nit ki lam doon nga dindi ko. def leneen ci biir nga xam ne xott rekk ay nekk si kaw. bëri na ñoo xamante bi ni comme ni ko prix kii doon waxee euh, France Fanon. maanaam le peau noire masque blanc am ñoo xam ne nekk ñi ci kaw. mais daanaka seen bopp ak seen xel ak seen xalaat lépp presque dañu mel ni ay tubaab dañ leen aliéné daanaka duñ nekk lii duñ ne dañ nekk si diggante bi. Mhm. loolu nag bis bii loolu lay symbolise bis victoire bi nit ñi ci tubaab bi. Mhm. am luñ bëggoon fay sëñ bi am sëñ bi yàlla may ko si ndam. Mhm. kon lépp day dugg rek. ni ma koy waxoon sànq wane lislaam wane diine wane wane njàngaleem Serigne Touba wane ni nit ku ñuul dugg na ci histoire. Mhm. ndaxte Serigne Touba dugg na ci histoire. Mhm. nit ñi ko bëgg a lànkee ne lépp lu nga xamante bi ne civilisation la wala culture la wala leneen la nit ku ñuul amu ci benn apport bu mu ci apporté. Mhm. te nag lii day wane ne tey euh, ndaxte boo demee si bindikat yu bëri dañuy wane ne rek Serigne maanaam participer na bu baax a baax si l'évolution de l'humanité kon ñun ndaw ñi wala ñun ñi nga xamante bi ne ñoo gëm Serigne Touba ndax yonte bi ko yàlla di wax daf ne ko amana rasul bi ma unzila ilayhi yonente bi gëm gëm Serigne Touba mooy lan mooy message bi mu amee nga porté ko mhm. loolu mooy gëm bu ne yàlla dañ koy gëm dañ koy jaam mhm. mais ab yonente dañ koy gëm ne li mu indi jóge ko ci yàlla dëgg keneen tamit dañ koy gëm woon ne ne message bi mu yoree dama koy porté dama koy moom lay moom lay moom lay raamu wala di ko leneen duñ ko gëm gi nekkul lu dul bu ñu gëm naa Serigne Touba wala gëm naa yonante bi mooy njàngaleem Serigne Touba man ci lay référé wu pour def sama dund mhm. kon moo taxoon tey jii ñu ne danañ ko jéem a wane suñu kéemtalaay kattan euh, di wax tamit ni suñu wàllu bopp ñu ngi ciy sant ñëpp surtout man personnellement di sant mboolem njabootu Serigne Abbas yi nga xamante bi ne peut-être sama jëmm ju ñàkk solo ji am nañ ci ak confiance ba mhm. ñoom ñëpp ñu délégué ma ma nekk seenu seenu seenu seenu seenu surga mën naa am. di sant seen mag la nekk sama wet. moom it sonn nañ ci ci doon bokk ñu ci taxaw di wax ne rek yàlla maanaam euh, boo góorgóorloo wala boo sabuloo mën na laa jàppale. Hmm. di ñaan tamit ne liñ ci def yàlla nangul na ko borom nangul na ko.